tabax Sénégal bu bees Sénégal boo xam ne day dox ci démocratie du rek nit ki da nga ko contre boo xëyee convoqué ko bu subaa nga convoqué waat ko jiiñ ko nekk da ngaa yóbbu or or boo xam ne moom bañ ko yóbbu moom nekkul ci dëkk bi nit koo xam ne nekkul ci dëkk bi nan lay jëlee avion naan ma ngay yóbbu or loolu xam ngeen ne munta nekk mbokk yi ñu tegal ci loolu dayul ñu tegal ma tuuma ne ma ku xam France nu mu mel ak restriction ya fa nag ak li am maintenant sur le blanchiment nga xam ne ay règles yu strict la nga ne nit mën na jóg yëkkati deux millions d'euros dem di ko verser espèce ci compte dégg gi sax dafay jigéen dafay jéggi dayam loolu nit ku ko gis am expérience état buñ la joxee kayit googu da ko war a xotti sànni ko xam ne kayitu mbalit la waane defuñu ko pour yàq sama der tilimal ma dañ ma koo tuumaal waane nag man yàlla dafa ma dimbale ba ah, sama sëriñ ah, Cheikh Sidi Makhtar Mbacké ah, Cheikh Ndiaye mi fi toog mat na ma seede ba ma fa demee doon yóbbu àddiya ndax guddi laa fa doon dem benn benn guddi Cheikh Ndiaye mii toog dafa wax ak moom di ñaawlu tuuma yi yi ñu teg sama der sëñ bi ne ma tuuma yooyu wax jooju yëkkati ko kese la lay jural te loolu laa gëm ma bëgg nag à partir du set ñu ñaan sénégalais yi ñu jël seeni carte sànnil ñu ko ba mbooloo mi ma àndal ñu dem assemblée tabax fa beneen genre député boo xam ne li ñuy def mooy saytu nguur gi doxal nguur gi teg ko ci dëgg ak jub ak yéwén ak yéene nit ñi ñu am parce que man loolu mooy sama combat li ma bëgg mooy nit ñi am ba mun a teral seen i mbokk teral seeni doom teral seeni i waajur tasaarew aussi def di social ah engagement boobu nag